ca mbokki réew mi nuyu ñu leen baax na waaw baax na Serigne ca mbokki réew mi nuyu ñu leen ak mbokk bitim réew tey nag ñoo ngi fii kër Balla Gaye 2 mu war a tudda doomam jël tur bi nag du fekk yaayam bi nga xamante ni mooy mère Sadio Boucher ngi nii alaaji Boucher mu baax na la mi da Balla Gaye 2 Boucher nuyu naa la ziar waaw maa ngi leen di fay maa ngi leen di ziar bu baax a baax maa ngi leen di jox seen wàccuwaay di kontaan ci yéen bu baax ñëpp di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu baax di santar Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu baax di santar Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu baax di ñaanal sëñ Muntaxa Basiru Xaadimu Rasuul yàlla defal ko jàmm tawféex taysiir guddal fanam yàggal ko fi lool di nuyu sëñ Bass Abdou Xaadir di nuyu kilifa diine yëpp aada yi ñaseen laayal xaadir waa kër Cheikh na Cheikh Saad ñëpp ñu ngi sant ñëpp Balla yàlla yàgg ko jox ay bant yàgg tuddee ku nekk amoon reer wala amoon yéene tuddee yaayam te yàlla may ko doom bu jigéen ku tuddee ak yaayam te yëg bi nan la moom ak yéen xaritam waaw tey moom xam nga du bisi wax sax tey dañ koo def tepp teppal ñeent nit a fi nekk booy xool. Mm-hmm. ñeent nit matuñu sax diis. Mm-hmm. bariwul parce que dañ koo def ci suuf ndax mbir yi xew. Mm-hmm. waaw waaye santaat nañ yàlla bu baax a baax di santaat yàlla di julli ci yonent bi di santaat xaadimu rasul waaw doom bu jigéen la am macha allah di ñaanal yàlla doom ji màgg ba ñu koy muur bu sëy yi lépp loo xam ne rek doom bi fekk na ko fi mu doon ay ndam ci barkeb Cheikhul Khadim yàlla defal ko tawféex bàlla lii mu sumb yàlla defal ko ci ndam ci barkeb Cheikhul Khadim mu am jàmm ku xam la xam ka ak yëngu-yëngu tey ngeen woote def lépp teg discret maanaam boo ñaaw ñu ngeen jël moo war a loolu wala lan la non ñun suñuy mbir amaana respect la lépp respect la te la ngay daa am ci lu mu jëm respecté ko jox ko cër fonk ko ndax moom mi nga xam ne moo jël mbir mi sax ñi nga xam ni ñoo ko bëgg ñoo ko gën a bëgg tey bu la ñi la bëgg buñ la gënee bëgg mbir da nga leen di jox cër delloo leen moo tax tey sañul def dara doo ko gis fenn du génn def leen ay toog fi mu toog ak ay xaritam ñu toog féete bis bi ndax tamit ah, ku ñaan kuy ñaan yàlla rek bu la yàlla mayee bant da ko war a teral te teraanga nag kenn du ko nëbb sax yu bari waaye nag weesuwul di nga ko rayal xar rayal ko nag waaw ay laadu macha allah waaw indi ko fi rayal ko ko tudd ko ci jàmm bu ñu paree bernde sant yàlla ak yonent bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul nekk ci jàmm tas ko jeex tàkk. mais bu gis benn vidéo boo xam te ni ñu gis ngay coow ñu gis Balla Gaye ki ngay coowal sax dañ koy téye mën nga ñu leeral te boobu ba léegi gisaatuñu la. waaw loolu bëgguma ci woon leeral ñun ñun ñun Serigne Touba rek lañ yaakaar. bu ne. ñun ñu ngi am teraanga bu nit di am rek nit ku baax nit kuñ naan baax na rek lépp lu muy rêvé rek Serigne tubaa defal nañu muy ci ay kër muy oto muy bernde muy teraangay njaboot ak lépp Serigne Touba ñu ciy dimbali kon ñun waruñoo xool ginnaaw waruñoo tooñ dama leen di laaj yéen sénégalais yi barke Cheikhul Khadim laa waat Serigne Touba Khadim Rasul rek laa gëm billaahi wallaahi taalaahi maag Balla ngay ñoo ànd di dem suñu dem taxaw EDK jënd essence ba pare gaare bi ñu gaaree may wàcc dem di jënd ay jus pour indi ko ci ñun ñu dugal ko ci oto bi dem moom ay jus ak ay ndox bi ma wàccee ñoom gisuñu Balla Gaye de barke Serigne Bam man lañ gis ma wàcc bi ma wàccee dugg ci EDK bi ñu jàpp ma ñëw ba ci man yor seen téléphone li ñu buggoon mooy humilier te man taalibe Xaadimu Rasul laa du ma ragal téye seen téléphone di ma filmer boo seetloo ñoom ñoo filmer ñoo wax seen wax bi ñu xamee ni attaqué naa leen lañ sori la téléphone parce que li may wax bëgguñu mu génn dañoo ñëw tiim ma ne ma Balla Gaye dee du dërëm tey la ñuy xam nga wax lu ñaaw. ci laa sànni affaire yi jubal leen ërtël leen. yaa ngi dégg ërtël leen attaqué leen ci lañ arrière ki yor téléphone bi arrière xoolaatal bu baax Badou Ndiaye moo doon dawalal Balla. Badou mi ngi dem ci kiy filmé nan ko kon yéen yëfi golo yi ngeen di def nag. léegi dañoo bëggoon ñu ma saagaa wala ñu wax ma dara ma noppi ñu tas ko ne ñu xooloo poussé tapkat la ak làmmiñam mais kër gi kër gi ñoom naan ma ay looy def pikin ñoom ñoom moom a nañu waxante dëgg lii foo rek la ak rek moom mu ñu lañ def ñëw tooñ ma bëgg ma humilier après Balla si la gis réaction am wàcc oto bi téye leen ndànk parce que Balla bisam bii bëggul ko ko yàqal te bisam bii da koo respecté da koo baaxee da koo fonk moo tax mu jàpp booy mais bu fekkoon nitu fitna la nitu coow la da ciy dugg ndax xaritam lañ laal xolam lañ laal ndax Balla ku ma laal laal ko waaye dafa ñëw calmer ba naxtaan ak booy yi ba booy dem mais Pikine ñoom moomuñu ko géejawaay ñun moomuñu ko ñoom leen neex nañ ñuy def minutes dañuy dem Pikine et Dakar te Dakar waa la te foofu mënoo yéeg péage bi te doo jaar foofu nañu waxante dëgg noonu la wax di demee mais image yooyu est-ce bokk na si image lamb mais ku ko ñoom ñoo koy def ñun dañ ko def man da nga a gis ma téye sama téléphone bi di wax lu ñaaw wala xeex ak nit ci mbedd c'est la première fois nga gis may jokkalante ak nit ci àdduna c'est la première fois te loolu ma def loolu réccu ma ci dara ndax dañu maa tooñ man ku ma tooñ jour boobu damaa yorul sama oto sax mais su ma yoroon sama oto amaana neneen lay demee ndax ñun ñu ay ragal te dëkk bi dañ fee valable respectueux fi am fi ay valeur gérer suñu image ba pare lépp lu ñu fi war a am ci dëkk bi maa ngi leen koy bamb dañu ko am am ci ay licence ñu de suñu der bi wuñ ko noonu suñu yaram wuñ ko noonu ba pare dañoo respecté suñu vie te dañoo am ay njaboot sauvegarde suñu soxlawuñu garde corps ñun ñooy suñu garde corps bopp kenn duñu wutal sens interdit ci àdduna sagam Touba la ñuy nekk di jaabante fu ne dugg kër Sëriñ Muntaxa dugg kër Sëriñ Abdou Karim dugg kër Sëriñ Cheikh Saliou dugg jumaay Touba dugg fépp te amuñu fa sens interdit ñu ñëw ba Ndakaar ñu bëgg ñu fay tegal sens interdit loolu ku ko jéem dootoo ko dolli. am na am na am na solo makkan du dem te duñ ko laaj. duñ ko laaj beneen euh, coow li nga xamante ni wala beneen programme bi nga xamante ni soxlu làmb ñoo ngi koy référendé. su fekkee rek bu mu daanee Paasaw. Mm-hmm. gis nañ ni takk ndaa yi ñu ngi laaj Lac de Guiers ñu ngi laaj am Baldé surtout ak Lac de Guiers jaadu na. non non loolu du làmb bugguma loolu nañ bàyyi ba mu ñor. lan moo tax ñoroon xale la mi ngi màgg kan kon Siteu kan fi mu nekk nii su ma doon moom mm. damay dem jëli sama revanche kan ak guy sama revanche laa jëli parce que de moom bu mu nangu ku taqal ginnaaw te Siteu champion la gars yi xamuñu Siteu de xam nga làmb ji man maa ko man maa ko décortiqué mm-hmm. te gis ngeen ko li ma ci wax lépp ah. damaa xam Siteu Siteu maa ngi moom ba ñu nekkee xale la ba tey Siteu 2014. Mhm. Mhm. man ak moom ñoo nekkoon États-Unis di bëree. di mhm. def lu ne man su toogee États-Unis yàlla ak Siteu la. ndax damaa dem bëgg a ñibbisi chaque jour ma wax ko. Siteu moo ne ma bul ñibbisi toogal fii liggéey moo tax ma toogoon Amérique di liggéey Siteu. moo tax mu nekk sama xarit. moo tax moom dama ko xam bi gars yi di wax ay këtt këtt ma leen bëre rek lay def. te bëreegul de Siteu bëreegul bàyyi cent pour cent xel bi ci werante lamb dafa laaj ko yooyu te yamul daal coow li du benn xam nga Siteu buy bëre day bëre ku kum tollool coow tolloog moom doole tolloog moom ay at tolloog moom lépp bokk ak moom jeunesse loolu mooy lamb te moom fi mu nekk nii demagul fenn Siteu si kanam moo li des moo na def ndànk rek dina bëri ñëpp incha allah. maa si sa jëw de. voilà El Hadj Mbaye. lan la. barki ngi ko defoon seen combat yi ñëpp ay mbokk mi def ñu ci am ñu si ñàkk seen bakkan ñu moo ko wax de El Hadj Mbaye. suñu micro bi la ko waxee sama micro bàyyi ko mu ñëw tontu El Hadj Mbaye ba pare. El Hadj Mbaye ko wax de. ñëwal El Hadj Mbaye wax bilaay moo ko wax la ko bu baax sax bu mag. dama ko ne yow xam nga bu baax xam nga bu baax xam nga bu baax. nga ne moo la ay. moo wax loolu seen bakk rek. moo ko wax de xam naa da ngay day foo rek mais moo ko wax. foo ma noonu lii kenn dañu gis ne Boy Niang voyage na France fan la Balla toll day voyage wala dafay des. loolu suñu yoon newu si. <laughs> ba xam Balla day des suñu yoon newu si. ñun suñu yoon a ne ñëpp li nga ma doon laaj wax nga laaj nga woon si ñëpp xanaa na. mais kontaan waaw maa ngi nuyu nag ñaari nit. ko nag kan. Doro Gueye ak Lat Diop. Doro Gueye ak Lat Diop. Doro Gueye ak Lat Diop maa ngi leen di maa ngi nuyu Doro Gueye ak Lat Diop maas xamul dox may nuyu ñoom. ñooñu dañoo nekk ay nit yu social sama téléphone daa fay xoolal daa fay nii. Mhm. kon ma wan la affaire yu garaaw. Mhm. Doro lu mat sept malade yoo xam ne ay naa lépp ay ay ay feebar yu garaaw lañ yor. Mhm. Doro Gueye yëkkati na xaalis bu bari jox ñu ko pour ñu jàppale malade yooyu. fan yi paase Lat Diop jox nañu xaalis bu bari pour ñu jàppale malade yooyu. te malade yooyu yëpp ñoom teg nañ seen bët ñu ne ñoom a ànd ba foofu jëli xaalis bi ñëw yóbbu leen ci hôpital yi. dund gi Lat jóob ak dooro Gueye ñu ngi koy yaatal Lat Diop Doro Gueye seen social bi ngeen nekkee yàlla na leen ko yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba fay Doro Gueye maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant teraanga gi ñu may jox pour ma jox ko néew doole kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yàlla na la ko yàlla fay xanaa da ngay waajal fondation waaw am na benn fondation bu ñuy waajal fondation dimbali néew di doole ak association boo xam ne lii dama koy lancé fii parole ngeen déglu Serigne tubaa kenn moom mën na fajal boppam ñun Serigne tubaa defal nañu lu ne fii nag laa koy waxee waaye dinañ ci def conférence de presse ndax fi ma war a jaar maa ngi fay jaar jokkoo naag sëñ Bass Abdou Khadre ba moom moo ma war a recevoir waaye daa nekk ci ay tournée damaa war a toog ak moom association bii may waajal ñun ndeem ñun Serigne Touba defal nañu lu ne te suñu tànk bi mën nañ koo teg fépp ci àdduna dëkk bu ne mën nañ faa dem dëkk bu ne ci àdduna mën nañ faa dem bu ñu soxla visa bii la ñuy dagg dañuy jël suñuy propre initiative jël suñuy propre responsabilité dëkk bu ne bu fa Serigne Touba amee ay nit maanaam bu dee Allemagne la wala bu dee Angleterre am ku fa ne di taf photo Serigne bi di wax ci moom lu ñaaw dañoo am dañuy def benn association boo xam ne murid yi nekk Allemagne Angleterre yëpp tey dañuy jóg man ma ñëw fekk si leen ak délégation bi may jëlee fii yóbbu leen bu buñ leen fa fekkee ki nga xam ni mooy wax sëriñ bi lu ñaaw dina am problème wala dëkk bi dinañ yëg ni am na lu fi xaw moo dinañ mars waaw bis ni ki tey sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bu ma defee conférence de presse ba toog sëñ ba suba du xaadara ba mu jox ma ci ndigal man maay jiite dinañ am délégation fii am délégation Angleterre am délégation Allemagne Italie France fépp ci àdduna képp bépp bu waay dëkk bu waay ne jël photo sëriñ bi di ci wax lu ñaaw murit yi ne foofu dinañ génn ànd ak ñun ñu yëngal dëkk bi bu mu yëngu kooku wax ko dina génn dëkk ba wala ñu jàpp ko tëj ko wala ñu def ko noo xam ni dinañu xam ni sëriñ Tuubaa du morom ah loolu lañ deseel sëriñ bi te incha allahu yi ñu ngi ñaan ñëpp jàppale ñu ci loolu daal lañu bëgg association boo xam ni waaw foto sëriñ bi moom kenn doodu ko waaw xeexal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kooku xeexal na boppam sax mënal na boppam lépp ndax moom mënal na boppam lépp waaye daa bari yërmande ba mu ëpp te ñun fi mu ni nii ñun ñoo koy fajal suñu bopp sëriñ bi kenn dootul taf photom wala ko jege sëriñ bi di wax ci moom lu ñaaw mhm. boo ko defatee li ñuy waajal bis bu ko sëriñ sëñ Bass Abdou Khadre accordé ba ñu am suñuy këyit am suñu lépp fépp fu waaye mën na ne di wax ci sëriñ bi lu ñaaw mhm. dinañ la fa fekk te dinañ la toroxal ba neexee am na solo jaajëf